asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki Touba Argentine ak li ko wër bu ngeen gisee toogaay bi ngeen xam ne am na lu ko waral lan moo waral sababu toogaay bi muy kan Serigne Afé mbakke ñu dëgmal bësam war ko amal fële ca njaareem toog kenn ci taalibe yi nga xam ne ah, bu ñu ko présenté rek mooy Serigne Abdoulah Samb nekkoon fële ca daaray Serigne sali moom Serigne Afé nga xam ne moo toog jataayu Serigne Afé yal na ko fi sama borom yàggal lool te mu ànd ak ak wér ci barkeb Serigne Touba dooley Serigne Afé di jaare bu baax a baax euh, doomam ji nga xam ne ñun moom lañu miin xam ko mu daan ñëw fii ci réew mi di jaxasoog ñun ñu xam ko ci baax ak jub muy kan Serigne Moustapha Mbacké di jaare bu baax a baax tamit am si nga xam ne moom la ñuy wax soxna say di lenn ci njabootuk Serigne Abdou Baaxe moom Serigne Xaasim Mbacké Cheikh Abdoulahad Samb ñoo ngi lay jaare maaleykum salaam wa rahmatullah sëriñ Assane Baye Fall ñu ngi lay delloo nuyoo bu baax di la siyaare yaa ki nga xam ne ngeen ànd muy sëriñ Fatou Gora ñu ngi leen di delloo nuyoo bu baax di leen siyaare bu baax a baax yaa ngi bu kon tey bu ko defee rek mbokk yi ñuy seetaan ñu ibbi foofu waxtaan wi ah, bëgg xam kan moom mooy sëriñ Afé Mbacké ak fan la ganee jamono kan mooy waajuram mu jigéen. nga jox ñu ci ay leeral ndax mbokk yi ñuy seetaan xam kan mooy Serigne Afé ak it nan la ànde woon ak ci Ahmadou Bamba Xaadim Rasul. jërëjëf Serigne Assane yaakaar naa loolu boo ñu ko laajee dinañ sawar ngir ci loolu muy kan mooy Serigne Afé xëy na it duñ mën a indi lépp faaw ñu tënku ndax te heure bi daf ñoo xaw xoj Serigne Afé mi ngi gane àdduna atum 1868 ci dëkk boobu di Porokhane di doom ci Maam Mor Anta Sali ak soxna Anta Ndiaye Mbacke moom sëriñ Afiya li taxit it euh, mu gane àdduna ci dëkk boobu di Poroxaan bi maam ba jox wootee xare boobu nga xamante ni ci moom la seqoon ak séeréer yi te tubaab bi duggoon ci moo xoon ni képp koo nga ñëw jàppale ko xeex mu waxoon ni képp koo xamante ni ñëw nga danga nga jihaat ci la Maam Mor Anta Sali dajale woon njaboot gi dem jàppale ko ci xeex boobu diir ba mu def foofu ca Poroxaan ci la doomam ju baax ji di Serigne Atiya euh, gane àdduna euh, ñu tuddee ko xaritam bu xaritam ak wóolóoram di Serigne Ahmadou Makhtar Niang Serigne Ahmadou Makhtar Niang mu ngi dëkkee dëkk bii ñuy wax Afe moo waral turu Serigne Afe waaye Serigne Ahmadou Makhtar Niang la ko tuddee Serigne Afe bi nga xamante ni mat na dal jàng. magam euh, waajurum bu baax bi moo ko jàngal alxuraan ginnaaw bi jox na ko sëriñ Ndaam Abdourahmane ko jàngal alxuraan ba mu bind ji bi it mag ñi bu ñu mësaana jàng alxuraan daan nañ dem seeti borom xam-xam mu saytu leen seenum njàng ndax wér na seeti leen seenum njàng ndax wér na ginnaaw bi dem na ci Maam jaara mag magi mag ngir mu saytal ko alxuraanam ba xam mokk naam déet Maam Jaara diirub ñetti weer daan na def guddi gu ne mu jàngaloo Serigne Afia ab kaamil ci guddi gi diirub ñetti weer daan ko def si ñasam daan ko def ba ñetti weer yi mat bi ñetti weer yi matee ci la Mame Mor xam ni Serigne Afia ñii alxuraan ji mu jàng macha allah lu mokk la te it loolu boobu Serigne Afia at yi tax ko bari jàpp fukki atam ak benn ak jàpp fukki at ak ñaar ci saayir moom ci la ci la ci la ci wat loolu alxuraan ci la def jëfi euh, jëfi wàllu yu moom sëriñ Afia sëriñ Afia ah, bi mu noppee ci alxuraan jooju taxul mu toog wëri na njàng na li am xam-xam delluwaat na ci waajuram bu baax bi yaakaar naa ni moo ko jàngal téere bi sax euh, bi nga xamante ni moom la magam di baax gi taalif muy Seexul Xadim waajuram bi moo ko moo ko ko moo ko ko moo nekkinam ginnaaw it wari na ëtt xam-xam yi nga xam ne ni ci biir réew mi ku ngi dégg rek ku ñu dégg taalub xam-xam rek dem na fa ngir taatan fa ba tey lenn boo tuddee wàllum njàng sëriñ Afé Mbacke xel nit ñëpp dana dem ca gànnaar ñu bëggoon nga leeralal ñu foofu tuuti rek. jërëjëf euh, Serigne Assane Baye sëriñ tubaab bi muy dem gànnaar ànd nag Serigne Afia xëy na temps bi ni may ñuy dem ñoom àndala dëgg-dëgg ak histoire ci am. ànd nag Serigne Afia gànnaar diirub juróomi at ya fa xam nga xam te ne la fa Serigne Touba def diirub at ya fa Serigne def gànnaar àndoon naag Serigne Afia fu ñu mos demit Serigne ndax Seexul Xadim xam na ni Serigne Afia mii borom xam-xam la ndax moo tax it fu ñu mos dem li koy féetale mooy wàllum njàngum alxuraan wàllum jiite gi ndax Serigne Afia foofa ca gànnaar. sëñ Tuubaa ni mu ko mooy déewloon mooy njàngum alxuraan ak jiite naaf mooy ñu gën ko xam ci ndax it sëriñ ku neexoon baat la ku mokkaloon alxuraan la it bu daan musaan daan jàng alxuraan ba muy naafile naari daan nañ sax ngir teewee jotaay ba daaw ñu ko musa rate mukk ndax njàng ngeen wi sëriñ Afe mu di jàng alxuraan ak baat bu neex moo waral naari daan nañ taamu fekke ak naafile moom foofu ca gànnaar bis sax naari euh, dem nañ Seexul Xadim naan ko dañoo bëgg nga jaay ñu sa jaam bii di sëriñ Afia ci misaal maanaam ci tënk loo ñu ko jaay ci alal ñu def ko ci moom moom moom ndax xemmeem guñ xemmeeloon sëriñ Afia ak bëgg guñ ko bëggoon ndax alxuraanu sedd ba ci sax Seexul Xadim mi leen tontu naa leen kii di sëriñ Afia kat du sama jaam sama rakk la kooku loolu xew na ca gànnaaw sëriñ Afia takk ndiggam bu baax di liggéeyal Seexul Xaddim foofu ca gànnaar ba sax am na bis sëñ bi mag di liggéeyloo mag ñi foofu ca gànnaar sëriñ Afe takk ndiggéen ànd ca liggéey ba keroog Seexul Xaddim da ko woo ni ko afiya lii ngay defee sant ma la ko li ma la sant moo di njàngam alxuraan ak jiite gi njàngam alxuraan ak jiite noonu lañ doxale nekk ca gànnaar sëriñ di wéy topp ci ginnaaw magam ci baax ji di ko liggéeyal guddeeg bëccëg subaa ngoon ba noppi defoon ko rey soppan ku loolu te bëggoon ko jërëjëf sëriñ Abdou Lahad euh, Samb ci waxtaan wu am solo wile euh, nga xam ne képp ku tudd sëriñ Afe tudd njaareem ñu bëggoon a xam sëriñ Afe Mbàkke lan mooy dundam foofe ca njaareem nga jox ñu ci ay leeral tuuti. gannaaw bi nga xamante ni Seexul Xadim ànd naa sëriñ Afe jóge ci tukki bi ñuy gànnaar ci yéen Jolof ba yësi ci njaareem bi ñëwee ba njaareem Seexul Xadim ci biir kër sëriñ Tuubaa la la la la dëkkoon ba sax. am na njabootam yoo xam ne dañ gën a adduna di ko jubluwaat li nga xamante ni moom la ko fa Seex Xaadim liggéey mooy njàngum jumaa ji yar donga yi ak jàngale loolu ko Sëriñ Tuubaa mosa liggéey doon foofu ndax ni ma ko waxee rek sëriñ ndax këram googu nga xam ne moo jàkkaarloog jumaay njaareem ji sëriñ bi moo ko daggal pàkk boobu wala Eh, kër go këram googu nga xamante ni moo jàkkaarloo jumaa ji yaakaar na sax fi sëriñaa fi njëkkoon a dëkk bokk na ci fi daare kaamil njaarim jii nekk tey fi la këram njëkkoon a nekk waaye bi ñu dagg njaarim jumaa ji bàkk bi ci lañ arrière këram gi yaakaar naa foofu mu dëkk amoon na ñeneen ñu fa dëkkoon waaye dañ dañ sëñ bi dafa joxe ndigal ngir ñooñu xooli feneen fi mu dëkk mu dëkkal fi sëriñaa bi ndax sëñ bi dafa soppoon Serigne Afe jege ko ndax Serigne Afe dëkk woon dañoo xawoon a sore ndaxte saa su ko musaana soxla taawam boobu ñu wax Serigne Modou Farmata mu daan yónni muy wooy ji moom nag day sawar lool ci yónni nañ Seexu Xadim ba suñu Seexu Xadim musaana yónni day daw dana ko yoroon feebar bu ñuy wax feebaru asma daw googu muy daw nag bi wooy ci Serigne Afe bu ñëwee da koy sonal lool ba loola yeggee ci sëñ euh, ci sëñ mag bi sëñ Tuubaa ba mu yësee ci moom ci la ni ci la woolu Sëriñ Afe jox ko këram googu xam ne moo wuuf jumaa ji ngir mu nekk ci wetam ni ko Afiya kaay fii sama wet ma di jaamu yàlla nga di ko seet mu réye ko ku Sëriñ Tuubaa maanaam seedaloo ak jaamu yàllam kooku ku ku réy ci moom du ko ndaw mukk ndaxte kaay fii sama wet may jaamu yàlla nga di ko seet ndax mën nañ xam sëriñ Afe kan moo ko njëkk a wut ci xalifaam. jërëjëf si ñaasam kii ko njëkk a wut nag wax xalifa sëriñ Afe sëriñ Modou Mbacke ci njaboot taxawaay taxawaay dajale taalibe ba ci xalifaam bu baax bi nga xam ne moo fi nekk tey mu di sëriñ Salif Mbacke Afe ñu am yàlla sa borom nga xam ne dëgg yàlla ay loxo moo ñu 2002 ba 2015 mu ci loxo xam lu bari ci moom bëgg ko lool te sopp ko lool dëgg yàlla ba ci xalifaam bu baax bii fi ne it muy Serigne Saliou Mbacké xam ne suñu bon yàgg def lool ak suñu Tuubaa mosuñoo jóg ci fa seen waajur wa tegoon tànkam mosuñ faa teg seen te seenu tànk fa lañ ko teg bëgg sëñ di ko liggéeyal rawet na alxuraan li nga xam te dunduk Serigne Cheikhul Khadim ak li ëpp ci dunduk Serigne Afia Cheikhul Khadim mu des ci njabootam ba ci xalifaam bi mokkal alxuraan lool te foo ko fekk ma ngay jàng alxuraan man de teg naa sama bët moo ma daan may sax fajar ku ne dana jàngi ay isib di teg fu toog ku ne làmmañ waa ngay daw ci arafi alxuraan yi fu mu tëdd sax di nelaw da ngay gis loxo bi di daw ci yaram bi di bind alxuraan yaram yëpp da koy bind alxuraan comme jot ci yaram bi bind alxuraan moom Serigne Saliou Mbacké Mahi mokkoon lool alxuraan te bëgg ko kon naan la ca waajuroo moo nekk ca doom bi ñaan suñu borom ko fi lool bi nga xam te ni yan bii nga xam ni yana na ko suñu borom woyofal ko lool te ñaan bu baax it mboolem njabootam bi tàmbalee sëñ Mahamadou Lamine Bara dan si nekk Rahmaan ba ci sëñ Modou Farmata Mbacke jërëjëf Serigne Abdou Samb ba tey rek mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi fi tey eh, ak Serigne Abdou Lahad eh, Samb ci waxtaanee Serigne Afia Mbacke ak it eh, sababu màggalu Serigne Afia bi ba rek ñi ñuy laaj Serigne Abdou Lahad Samb diggante Serigne Afia Mbacke ak ki nga xam ne mooy mam Cheikh ante Mbacke borom Daaru Salaam ak Gaawaan kenn ku nekk xam na ne Serigne Moussa Ka na soxna Anta Ndiaye wàcc na am yaaram am ilimaan gàlliwuloo ci maaram ñuy bëgg laaj diggante Serigne Afé ak ki nga xam ne mooy maam Cheikh Anta seen diggante nan la demee woon ak seenak mbokk ak seen jaxasoo Serigne Abdoulah. macha allah Serigne Assane diggante bu tax seen seen diggante ndaxte maag sax doon na nettali naan diggante maam Cheikh Anta ak Serigne Afé dañuy mel ni ay doomi bàjjen yu toog ndax ni nga xamante ni noonu lañ bëggante woon ak ñi nga xamante noonu lañ soppante woon waaye it sëriñ ya nim jàpp woon magam bi baax jooju maam Cheikh Anta def ko kilifa def ko def ko rayuwaay rayuwaay ci lu bëree bari ba sax dañ ci nettali benn histoire ah, yaakaar naa bis nettali nañ ma ni Serigne dafa nekk ci benn néeg bu xaw a doy waar néeg boo xam ne ndax taar ba xaw koo rafet lool maam Cheikh Anta borom sañ-sañ la sañ-sañ la mu ñëw fekk Serigne Afia ci biir néeg bi keroog Cheikh maam Cheikh Anta mi ngi koy tooñ naan ko Serigne yow de Afia ah, nekk de kër nekk doy na waar keroog Serigne naan ko ba ñëw ma ku ma gënul nekk waaye ku ma gën la def ci biiru néeg laay bañ. ndax na fu mu nekk rek kenn suñu toll jàng bu ñu ñoo bokk suñu waajur wa waaye lépp ñoo ko bokk ba ci sax danañ ci indi benn ba ci dem sëriñaa bi sax sëriñ joxe na ci misaal ndax bis seen njaarim bis seen njaarim Sëriñ Tuubaa toog na ak sëriñ Aafiya ni ko Aafiya sa mag ju baax ji yaa koy njëkk a génn àdduna am yaa njëkk a génn maam Seex Anta te wax jooju sëriñ Aafiya jàppoon na ko tey takkoon na ko wax Sëriñ Tuubaa bis sëriñ bis maam Seex nekk ci tawat bi nga xam te ni moo ko war a yóbbu ñu yëgal ko sëriñ Aafiya ni ko kat sa mag ju baax ji kat mi ngi ci tawat bi mi tey métti keroog sëriñ Aafiya dem na seeti ko waaye bi mu demee ba jàkkaarloog maam Cheikh Anta xool ko xam ne jii taw kii kat doonul koo xam te ni tawat ji mu tawat doonul koo xam te ni ndax jóg ko yombaat jóg ko yombaat la fàttaliku la ko Seexul Xadim waxoon sama ju baax ji yaa ko la ni man kat jaaxle naa ñàkk ni man jaaxle naa ndekat sama sang bu baax ba Seexul Xadim waxoon na ma ni sama ju baax ji yaa ko njëkk a génn àdduna te sëriñ Afe gisee maam si ànd doonul euh, doonul ko xam te ni jóg dana ko yomb ci ne ko sëriñ benn jarbaatam bu ñu naan sëriñ Mor Faati Touré ci leen ne ko kon sang bi tee ngaa batale ba fi keroog sëriñ Afe bataleem ñu naan man bi ma xàmmee léegi musuma def musuma tooñ sama moroom musuma tooñ it sama boroom musuma tooñ sama morom musuma tooñ ma astaxfirullah di kon kooku ko ci àdduna loolu nag jafe na ci mu dellu ca néeg bi nga xamante ne lañ ko dalaloon ci waxtu tàkkusaan bu mu doon jiite doon ci julli ca ko suñu borom moomee. foofu foofee ca Daaru foofu ca Daaru Salaam. ko ci waxtu moomee. jarbaatam bii de sëñ Mor Fati Touré moo ko xëcc moo ko defar ah ñu yëgal ko njaboot gi léegi taaw maam Cheikh Anta ndigal ci nañ ko denc Daaru ci la ko sëñ Modou Xaramate Mbàkke ni ko ñaan ko ndigal rek teeg maa may ma wax la te moom kat bu mu sax na wat mbaa mu dagg weeyam daan na yóbbu Tuubaa ni ko ni ko daan joxe ndigal ñu yóbbu ko Tuubaa ni ko nañ ma ko nañ ma yóbbu Tuubaa mu jiitu kon ci la ko taawu maasee xam waxee kon kon lu wax ci leer na kon Tuubaa nañ ko yóbbu ginnaaw bi boobu li ñuy wax nii lépp li xew nii lépp xalifa Sëriñ Mouhamadul Moustapha la ci lañ dem yëgal ko ko ndax it maam euh, ko soppoon la jàppale it la ginnaaw làqu Seexul Xadim ba sax Serigne Afia tuddee na ko doom Serigne Afia tuddee na ko doom muy caatu Serigne Afia de Serigne Mouhamadou Moustapha ñaan suñu borom ñu ngi dëkk Touba ñaan suñu borom yàggal ko fi lool mboolem njaboot gi yëpp ñaan suñu borom yàggal ko fi ñu yëgal ko Cheikh Mouhamadou Moustapha Cheikh Mouhamadou Moustapha joxe ndigal nañ ko indi Touba keroog Cheikh Mouhamadou Moustapha li talee Daaru Salaam ba biir Touba lépp ay làmp la ko def ngir ñi nga xam te ni ñu ngi indi Serigne Afia te yenn ko ñu mën a am yoon bu baax am wu leer te gaaw te indi te indi ko keroog Cheikh Mouhamadou Moustapha moo ko taxawu moo ko gunge it seede ci moom kàddu yu rafet foofu jërëjëf Cheikh Abdou Lahad Samb ci leeral yu am solo yi nga xam ne indi nga ko ci diggante seriñ Afia ak maam Cheikh Anta Mbacke kon du def rek lu dul di la laaj lan mooy bu bës bi nga xam ne mooy bésub euh, Serigne Afia Mbacke bi nga xam ne ñu ngi koy taxawal foofee fa jërëjëf Serigne Assane ci laaj bu am solo boobu xam laaj na ko muy lu waral bis bi bi nag bi ñuy fàttaliku moo di bis bi ko seexul xaddim joxe jumaa yi njariñ jooju jox ko ci ndigal ngir mu jiite bis boobu lañ jaboot gi di fàttaliku daan nañ ko fàttaliku sax njàngum alxuraan ak waxtaan ci moom bu timis jotee ñu yeewu mbooloo mépp waaye doom bu baax ji di Serigne Saliou Mbacké Afia ngir bëggub yaatal ak dimbali taalibe yi moo waral mu woote ko wooteem bu yaatu bii tey si ci bépp taalibe boo xam te ni yaakaar nga sëriñ yaakaar nga jariñu boobu nga xam ne ñu koy woote sëriñ Assane sëriñ sëriñ ku ku daan topp koo xam ndax moom biir kees biir kees suñu daan na takk ndiggam ba mu dëgër këcc di yëkkati ku tedd gi xasida ci baat bi kon bis boobu buñ ko wootee ci njaareem xalifaam bu baax bi di Serigne Saliou Mbacké maa fi ñaanal si borom ko fi ko képp ko dib taalibe war nga faa teew loolu moo waral bis bi ndigal ko suñu borom joxoon daal li ko suñ tuwaa joxoon ngir mu jiite jumaa ji jërëjëf Cheikh Abdou Lahad xam naa waxtu wi ngi ñuy faj ndax li des ci waxtu wi bareetul léegi comme yaa ngi fii ci Touba Argentine ana bés bi nan nga ko fiy dunde yaa ngi mbokki taalibe yi fi nekk. waaw jërëjëf Serigne ah, nga xam te ne lañ nekk muy Touba Argentine dinaa sa man damay wax sama féetuwaay dëgg-dëgg ak bis bi ma am mooy bis. àddiya loolu laa am mooy sama bis ndax sama bunt ci yoonu Seexul Xadiim mooy seen àddiya ak fu nekk naa ko feeñal sama yéene ba ñëpp xam ne ko sama yéene moo waral lii ni moom la def ñu ko def nag bu ñëwee nañ koy màggale Sénégal nañ koy defee Sénégal am naa yéene defee ko defee ko ci defee ko incha kaani incha allah rabbi dinañ ko fi yëkkatil ay xasida yu xam te ni diirub nekkee ci dëkk bi ñoom lañ àndal liggéeyu Seexul mu mu fësseefu ci njiitu jëwriñ Serigne Xaadim Dia ba ci Serigne Ali Baye xam ne mooy jëwriñu kuréel mbooloo moo xam te ni mu bëgg li ñuy def mu sopp li ñuy def. ñu fas yéene ko ànd ak ñoom ci njàngam xas dégg fas yéene ànd ak ñoom ko comme naka waa Sénégal di dundee yëkkati seen i berne lépp nag gi def ko addiya Sëriñ Atiya Mbàkke ndax kat nit ko amul lu ab sëriñam te nit ki ab waaye mooy ab sëriñam te ñun suñu borom bind nañu boole ñoo ko Sëriñ Atiya waaye ñu am dugg lool te it Sëriñ lu nekk ci ñun Sëriñ ko def ci ñun ndax doomam moo ñu yar lu nekk Serigne Afia ñu doon ko yar ba ñu doonee xale bu ndaw ci atum 2002 lañu suñu waajur yëkkatee jox ñu Serigne Saliou Mbacké Afia ñi nga xam ne mooy xalifa yàlla na suñu borom te wéral su koy di defee daayira bi mooy daayira constitution fi ko baaxoo defee lañ koy defee ñun nag yàlla def na ni wowuñu mbooloo ngir ñi ñëw dañ koy yëgal mbooloo mi rek mbooloo mi nga xamante ni ay mbokki taalibe la ñun ñu nekk Argentine di leen fàttali bisub Serigne bi mu tombe mu doon la 27 tombe ak alxames biir ñëw ñi ñaan bépp taalibe boo xam te ne mi ngi ci dëkk bi bis bu ñëwee mbooleem loo man ci njàngam alxuraan mbooleem loo man ci njàng njàngam xasida mbooleem loo man ci tudd yàlla nga tudd ko def ko adli Serigne ya ndax kat Serigne Assane dëkk bi dafa demee noo xam te ni bëgguñoo déranger kenn tey koo yàqal 10 minutes rek. maanaam amel nga ko àq ndax xataayu dëkk bi moo waral euh, li ñu def moo waral euh, ñu tënkee ko noonu dajaloo rek ñun kuréel gi ak ñenn ci soppe yi ñi ñi ñi ñi jàng xasida jàng alxuraan def ko addi si ñoo ci bis bi loolu jërëjëf sëriñ Abdou Lahat euh, Samb ci waxtaan wu am solo wi nga xam ne indil nga ñu ko mu jëm ci sëriñ Afé Mbacke kon mbokk yi lii lañ leen fi indiloon du ñu def lu dul rek di leen sant di leen gërëm di ziar bu baax a baax sëriñ Gora Seck mi ma nekkaloon ci camara bi di. nuyu ak ziare suñu sëriñ suñu xarit ndax mënuñoo wax ci sëriñ Afia ba jeexal te tudduñu ko muy sëriñ Moustapha Mbacke moom sëriñ Saliou moom sëriñ Afia ñoo ngi lay jaare bu baax Mbacke di la ñaanal suñu borom eh, yàgg eh, dëgëral sa taxawaay te yàggal la te wëral la kon mbokki jullit yi mbokki taalibe yi doon seetaan seen télévision Touba Argentine TV ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziare di leen wax ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa